ministre de la justice moom nag mooy superviseur mooy saytu lii di campagne bi aussi gis ngeen na ah, lii di coalition bi depuis démb pratiquement ou un certain temps ralliement bi vague de ralliement bi docteur Abdourahmane Diouf dem nañ ci conférence de presse doon joxe ay raison am rek lu tax mu waral moo ànd ak Bassirou Diomaye Faye maanaam jàpp ne moom c'est par principe du pour poste du pour dara ndax am na yenn programme yoo xam ne ñoo ko méngoo ñoo méngoo yenn principe muy ay kaddu docteur Abdourahmane Diouf di ko yëkkati kii di maître Moussa Diop ah, ñu jàppoon ci affaire jamaa yi moom itamit génn na ñëw na rejoindre lii di coalition Diomaye président kii di Serigne Ndiaye Diop gis ngeen ko aussi rejoindre na la coalition Diomaye président gis ngeen sànq la mu di Lamine Diante li nga xamante ne moom moo yor wàllu coalition yi rek képp nga xamante ne bëgg nga bokk ci coalition Diomaye sànq mu ñi xamal ne yaa

baaxuleen mu ngi mu ngi boobu la kay góor gi ba léegi yaa ngi daw per yow ñaataat nga am man maa ngi ci cinquante ans maa ngi taxaw di daw billaahi ah. Ousmane da koo jar ah. Ousmane moo ko jar réew mi ku ñu ko bëgg a billaahi jar na lii dañ koo xeexoon ci Ablaye Wade daw bu bëgg a dee dara sottiwul ñu xeex ko ci Macky Sall daw bëgg a dee daal fàttiwul waaye ci Ousmane Sonko mii lay sottee. sonn ko ba léegi. ah déedéet déedéet déet. mën naa doxaat lu toll nii. maa la ko wax. parce que rendez-vous à ACOPES. non rek. rek maa ngi ñëw. kon donc muy euh, ma boo xam ne suñu moromu bàyyi la mën ñu moom sax depuis si kër góor gi moom mi ngi daw di dox moom laa tasewaat léegi parcelle fii lañ tasewaat mu ngi dox ba léegi moom moo ma tàllal loxo mu ne ma booy ba léegi maa ngi daw muy wane rek mag la ah, malgré sonnul taayiwul ndax bëgg Ousmane Sonko moo ko jaral muy daw cité kër góor gi depuis 10 heures ba léegi il est 13 heures il pratiquement ñu ngi daw ba léegi lu ko dalee cité kër góor gi VDN lu ko dalee Liberté station rond point 6 Grand Yoff Har Yalla pa bi mi ngi daw ba léegi ba parcelle boo Sénégal 92 ba léegi mi ngi woy di daw sonnul marul xiiful pa bi malgré l'âge avancé malgré les cheveux blancs ah malgré sa paa bi mi ngi daw ba léegi jox nañu rendez-vous nee na bu jëree dawat lii ba beneen distance dina ko daw mu ngi ñu jox rendez-vous fële ca lii ñuy waxee terrain ak pes si caravane bi war a defee terminus ngir ñu def foofu meeting. kon donc voilà voilà la caravane de la coalition Diomaye Président ñu démarré ko sànq 10 heures fële ca cité Keur Gorgui ñoom nag nii la ñu tàmbalee seen lii di seen campagne ah kon donc ñëw sànqoon teg d'abord. pour la première journée. Il y a aussi euh, le chef de protocole. Le chef de protocole Tibigay. Le chef de protocole Tibigay. Chef de protocole. Chef de protocole. tey euh, mbooloo bi depuis 10 heures ñu ngi si sa kër góor gi ñu ngi doom ba ay mag ay paa gaa gaa yaa nga bële leader yi laa soxla dama waxtaan ak responsable waaw. mu ne nañ Jibi Gueye ah dañuy woy wàcc oto bi dox parce que pratiquement li ngeen gisee c'est un peu serré mbooloo bi bëri na daanaka yenn image yi yenn réaction yi duñ ko mën a am waaye on est obligé terrain ñu wàcc xool ah, situation bi ci foule bi jël quelques réactions. donc ñu ngi fii ba léegi ba tey parcel ñu ngi fii ba tey parcel on voit baa ngi seen mbooloo bi. ngeen wax. Sonko rek. Sonko rek Diomaye rek. ñu ngi dégg noonu mbooloo bi daanaka. kuma babu rombo sun goyo sun goyo jama'ar da ke